alo allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Pape Khalifa waaw. yaay Daara. alhamdulilah soxna Hadja ñu ngi leen di ziara bu baax. ñu ngi lay nuyu di la ziara. jërëjëf jërëjëf yal na yàlla mu jàmm ci rajo Daaray Lislaam. amiin amiin. comme ni ñu ko waxee woon rek euh, semaine bee ñu génn. temps bi njatoon ñu mu xatoon lool ba li nga amul yéene wax ka yépp yàlla dogalul mu euh, euh, sotti ñu fas yéene ñëw ñuy lay euh, defe naa keroog fa mbow présentation bi mu defoon macha allah doyoon na waaye dañu dolli ñëwaat rek di wax mbokku jullit di mbokku taalibe yi nii kii di wax ak ñun mooy Pape Khalifa Ndiaye bu soxna xadis yi bu Khalifa Ababacar yal na yàlla yokk leeram amiin moo ñu waa Asfiya yi ngeen xamante ni muy site boobu nga xamante ne ni ko maam faa waxe woon kenn dootu laajte bu site boobu ndax àddina wërngal képp lañuy déglu site bi di ko seetaan information yoo bëgg a xam ci bépp këru diine rek boo duggee ci site boobu di nga ko fa am di nga ko fa am Euh, waaye duñu def lu dul bàyyi leen ak Pape Khalifa moom ci boppam mu ñëw ak ñeen ci site bi ak lu waral site bi ak duggam tey ci rajo daaray lislaam nga xamante ne àdduna bi yëpp ñoo koy déglu euh, ba xam lan mooy euh, tey lan la soxlo ci lu jëm ci wàllu site boobu ndax Euh, comme mi ngi ci micro bi dañ leen di bàyyi rek ak Pape Khalifa mm, daaray dalal ko ak jàmm ak salaam yox ko ziyaar bi nag mu tegal ñu ko ci loxo waa Asfiya yi yëpp Pape Khalifa bismillah bismillahi rahmani rahim in the name of God the merciful the compassionate alhamdulillahi iqraaran bi nicmatihi wa la ilaha illa allahu ixlaasan bi diinihi wa sayyiduna muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam shahidan bi risalatihi wa abul abbaasi ahmad tijaani mumiddi kulli awliya rahmaani muctarifan bi bi wilayatihi wa shaykhana shaykh alxaaji malik alayhi rida almalik mutamassikan bi bi azyaalihi mbokki jullit yi ñuy déglu ci w PAT ci New York ak ci États-Unis ak ci àdduna bi yépp à travers internet di diñu déglu ci Sénégal ak dans le monde entier ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu aq di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di ñaan yàlla fépp fu immigré nekk di doomu Sénégal di jullit wala di doomu Afrique di daan seen doole bàyyi bàyyi seen réew naka yàlla doon junjee ci alquraanul karim ca suratul quraysh li ilaafi qurayshin ilaafim rixlata chitaai wa sayf yàlla di melal ni immigration waa quraysh ñoom ñoo ko daan def di yàlla di melal ñaari saison foofu achita wa sayf mu di hiver ak été nga xamante ne winter ak summer nga xamante ne moom la waa Quraysh daan def di émigré di jóge Makka di dem siri di dem ind di dem ci dëkk yu sori di jël ay marchandises di dem ci marché di daan seen doole yàlla di melal nag immigré yi ci saar boobu mu nekk saar bu am solo ci wàllu ñaan ndax xalifa bi Cheikh xam Mouhamadou Mansour dafa am lu mu daan ñaanal immigré yi mooy yal na yàlla dafa leen mucc ak mos te boo xoolee mucc mos mooy alladina atamahum min juuin wa amanahum min xawfin mos gi mooy li la yàlla di wërsëgal nga koy yóbbu sa njaboot mucc gi mooy la ngay nekk di daan sa doole danger bu nekk nekk ci yàlla mën la sàmm arla ba nga mën a delluwaat ci sa réew Sénégal yàlla na ko yàlla def jaarale ko ci rajo bi nga xamante ne tey mooy daara yi lislaam tabaarakallah suñu ay yaay yu baax ñu leen di nuyu di leen ziar ci studio bi di yaayu daara di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér moom mi nga xamante ne tey baatu yaayu daara rek dafa symboliser lépp ndax moom lay taxawaayu maam Fawade Wele ak maam Jaaru Buso taxawee woon tey ba yàlla may leen maam Cheikh Alxaaji Malik ak Cheikh Ahmadou Bamba tabarakallah nuy waale soxna Faatumata Wade Wele mbow bi nga xamante ne moom moo koy taxawu ci studio bi nuy waale soxna mami ci assistance beeg coordination bi moo mel ni ñuy am mbégte lool tey tabaarakallah ginnaaw bi ñu yëkkatee suñu kàddu ci kilifteefu xalif général di Tidiane Cheikh Sayidi Ahmed Tidiani Cherif Al Maktoum di ko ziar di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér mottali yéeneem ci njabootu kër maam Cheikh Al Hadji buñ ko nuyoo nuyu mboolem usratul malike bi nekk ci États-Unis yëpp buñ si nuyoo suñu kilifa sëriñ Mansour si Dabbaax nuyu sëriñ Sidi Ahmed si Mouhamadul Habib sëriñ Alioune Badara Sy ak soxnaam ziara ko bu baax a baax ak mboole mi ñuy eh, déglu yëpp ñuy ñaanal daaray lislaam tey mbégte lañu am ay soxna wàcc seeni nelaw teg seen tànk fa ko suñu maam Xadijatu bintu Xuwaylidin tegoon fa ko Sumayya tax eh, sayi situ eh, sayidat sayida Sumayya keroog nekk premier martyr ci biir l'islam tey nga gis ñoom ñu taxaw taxawaay bi ci biir New York ak ni mu mel ngir mën a dimbali immigré yi ngir mën a dimbali ndaw ñi ñu mën a fexe ba xam ni que am na ay valeur yoo xam ne tey loo tukki tukki la maam Cheikh Alhaji Abdou waxoon ca Paris ñëw ne immigré yi bàyyi leen xel ni yàlla nekkul Sénégal kese bu tax ba bu ngeen ñëwee mel neneen nu ngeen waruloon mel jàpp leen ni yàlla mi ngi fépp kon loolu mooy wét gore wétaliku gore kon daaray lislaam dafa ñëw ngir dimbali jullit bi man ko fexe ba mu mën a delluwaat ci valeur yi mu am rawatina nag ñun valeur yi ñu am ci biir suñu réew Sénégal nga xam ne macha allah la Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy daan wax ni yàlla bu xeebee li mu am Sénégal dootu ko am feneen macha allah jàkk yi koor bu jotee nga gis macha allah tafsiri alquran yi gàmm yi loolu lépp ngir mën xam ne tey lislaam bi am na doole boo xamante ne tey ci réewu Sénégal nee na bu sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw de nee na bu doon ñëw tey Sénégal fenn la fay ñëw jublu muy fan Tiwaawan tabaarakallahu ñu ñëw nag tey nag ci turu asfiyahi point org nekk tey outil de communication boo xamante dañ ko teg au service exclusif de Tivaouane au service de l'islam mu ñëw ngir tey mottali lenn la mag ñi amoon ci yéene ndax dañuy wax ni yàlla buy wax dafay waxe ci ñetti fréquence dañuy waxee nag euh, incha allah waxtaan bi ci niveau boo xam ne kiy déglu tey nekk ci extérieur dina xam ci fan la ñuy waxee ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax ni dee leen wax ak nit ñi kéemtalaay seen lan dég dég te comme que nag dañu nekk ci jamono internet jamono technologie moo waxtaan bi dañ koy fexe ba indi ko ci niveau boobu niveau boobu nag mooy lan yàlla suy wax ci alquran yàlla dafay émettre ci ñetti fréquence ndax boo demee ci rajo di nga ci fekk li naan onde court di nga fekk li ñu naan onde moyenne di nga fekk tamit lu ñuy wax FM ñetti onde yooyu yëpp dafa am niveau boo xamante ne ki mën a capter wala ki nga xam ne appareil moom moo mën a capter kooku moom moo koy mën a dégg yàlla nag di waxee ci niveau boo xam ne dafay toll ak ak ak moom kooku la ñuy wax onde supérieure foofu nitu yàlla yi ñoom ñoo fay tibbee euh, awliyaaw yi ak ñi nga xamante ne mooy anbiyaaw yi beneen niveau bi nag mooy ci diggante asamaan ak suuf foofu la yàlla di tibbalee philosophe yi fa lay tibbalee médecin yi fa lay tibbalee képp koo xamante ne al ulul albab waaye niveau bi gën suufe nag yàlla di ko waxee di wax ak ñi nga xam ne tey ñu ngi leen di ñaan ñuy utiliser seen xel niveau boobu nag mooy niveau niveau bi nga xam ne moom moo gën a tuuti moo tax bi yàlla di yónni si jiitunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla préparé woon na tey rajo yi télévision yi internet bi ordinateur yi ndax ba muy yónni sayiduna muhammad keroog ba maam Cheikh Alhaaji Malik nee na keroog ba yonente bi nekk ca xaarul xira daan def li ñuy wax méditation spirituelle di daw màkk dugg ci biir xuntuma di weetal boroomam di fa ñaan yàlla fa la ko jibril alayhi salaam fekk waaye ba jibril ñëw it dafa xëcc yonente bi bokk ko bokk ba ko bokk moom la maam Cheikh Al Hadj Mal di tënk naan iskarara al ghatta marratin yaquula la xoqara bismi rabbika anta al qaatimu jibril alayhi fekk yonente bi xëcc ko bokk boobu yoon Jibril doorul woon na Muhammad déedéet waaye ci dégg-dégg jamono daf ko doon formaté ndax ordinateur bi nga jël jënd ko soo bëggee données yi dugg ci biir danga koy jël formate ko tënk ko ndax mu mën a am capacité wu dékku li nga xamante ne moom lañu ñu war a dugal ci biir kon Jibril dafa ñëwoon pour formaté yonent bi xam ne daf koy jële ci Muhammadul Bachar yóbbu ko ci Muhammadul rasul ndax yonent bi tamit ñetti niveau la am dafa am muhammadu nuur muy lan leer bi moom la maam Cheikh di tënk ca muhammadu nuuru abdallahi cheybata hashimi di la indil foofu leer bi mu indi la tamit muhammadul bashar mooy xul innama ana innama ana basharun mislukum man de nit laa ni yéen nag li may wuuteek yéen nit ñi mooy leen yuuxa dañ ma dee yéen kenn deewu leen kon foofu moom mooy muhammadun rasul moom la ma Cheikh Alhaj Malik di tënkaat ci biir Taysiir ci ñetti mu euh, leeram ya nuurun mina nuuri xat aw daxtoo xikaman nuurun axaata bihi nuurun mubinun ci ñetti niveau yi nga xam ne moom la sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam am kon bi jibril ñëwee dafa ñëwoon pour formater yonente bi ngir ngir capacité bi mu koy fas yéene dugal ndax li mu ko fas yéene indi leer lan la alquran alquran nag bu ko yàlla wàccee woon en vrac ci àdduna bi àdduna bi tas ndax leeru alquranul karim bu moo gën a am doole misil yi ñuy wax tey bu si benn wàccun ci kaw suuf àdduna bi tas moo gën a am capacité doole cent vingt quatre mille fois bombe atomique yoloolu lépp nag yàlla tënk ko nag ne kon du ma ko sol yonente bi ndax bu ma ko solee ci état wu nit rek yonente bi explosé jibril ñëw nag ngir mboq ko pour lan mën na jël yaramu malaayikaam diw ko ci yaramu nitu yonente bi yonente bi génn ci yaramu nitam jaxasoo yaramu malayka yàlla roof ko alquranul karim mu mën a nekk nag ci capacité wu cent vingt quatre mille giga moom la ko jibril salaam sol ba koko ko ko solee it moo tax buy jibril daan ñëw di wàcc alquran Sayyiduna Muhammad day xonk cur day toog di waxtaan ak saxaaba yi jékki-jékki rek ñu gis ni mi ngi commencé di xonk ndax lañ koy sol buñ ko soloon beneen nit kooku kooku explosé kon waajtaay boobu yàlla waajoon sëyu Sayyiduna Muhammad ngir indi alquran ndekete mooy loolu it mooy dellu ci salaatul fatih bu ko yàlla wàcce woonu en vrac ci kaw suuf leer bi xajul ci kaw suuf waaye dañ koy fujjal di ko segg ba capacité bu nekk mën koo dékku alquran di dox ñu koy def ci ay doj alquran di dox ñu koy def ci ay xeer di ko def ci ay der ba jamono di ñëw yonenti bi génn àdduna abu bakrin siddiq seydna omar gis ne juróom ñaar fukki saxaaba yu wattu woon alquran ñu ngi génn àdduna mu ne kon nañ ko boole def ko kon mushaf woote na commission jox ko teg ko ci loxo seydna osman ibnu afan kaab ibnu zubair ñoom ñu toog ak ñi ñu àndaloon ñëpp tënkal nag alquran ba def ko nag kaamil bu ngeen demee ci internet di ngeen gis kaamil bi njëkk bi ñu njëkk bind mi ngi pesé six cent et quelques kilos ndax ni kayit yi toll woon jamono boobu ak na encre ba meloon ñu dem nag ne léegi nañ ko nañ ko nañ si bindaat yeneen tas ko ci capitale islamique yu mag yi yóbbu Syrie yóbbu Égypte yóbbu fu nekk tey nag jamono di dox technologie bi di continuer xajjatul widaa bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mujjee def fala la technologie ne leen nag képp ku teewul na ngeen fexe ba jotale leen message bi ndekte yonent ba leen di wan ni relais bi dey continuer nañ dem ba daaray lislaam na toog di jotale message yu sayiduna Muhammad tey loolu di dox ba imprimerie ñëw ak kan Gutenberg loolu continuer ci vers les années mille huit cent mille sept cent loolu ñëw imprimerie ñëw ñu jël kaamil boobu di ko di multiplier kaamil yi njëkk a defar ci àdduna bi matul woon sax conteneur jamono di dox ñu koy def cassette di ko def euh, CD léegi dépassé nañu sax léegi CD clé USB léegi dépassé nañu sax léegi clé ñu ngi indi trois d alquran di toll foofu nag bu alquran tolloo foofu nag te nit ñi tolloowuñu ak alquranul karim kon il faut que kon mise à niveau am mooy que jullit ci ñoo war a dellu ci science su alquranul karim xam ne alquran yàlla indiwu ko pour julli woor joxe joxe azaka kese waaye def ko indi ngir tënkal doomu aadama bi dundam ngir mu mën a xam naka lay tegoo ci yoonu siratukal mustaqim indi la li àdduna tënk yëpp indil la ko ci benn téere jox ko sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci visé boobu nga xam ne alquran am na ko taxawaay boobu la maam Cheikh Al ci liggéeyam moom tamit xam ni jamono ngi ñëw amoon xew-xew bu mag bu amoon tamit Sénégal ndax weeru koor dafa jot mag ñi di yëgle weer bi feeñ na ci lan télégraphie jamono boobu muy technologie bu tubaab bi indi weerante am fa yenn mag ñi ne déedéet waruñu yëgle weer bi ci télégraphie ndax loolu bidaa la yonent bi wàcc ko fi ñu indi si werante ulamaawu Afrique ak Sénégal yépp dajaloo bi coow li nag bëree mam Cheikh Alxaaji Malik am ñu dem ba bind xaaxira maam maam Cheikh Malik ci dégg bi mu déggoon jamono la Paul Marty waxoon ci l'islam au Sénégal nee na de tous les chefs religieux alhaji Malik et le plus instruit le plus pédagogue le plus intelligent et le plus beau macha allah muy niveau bi mu toll woon ci wàllu dimension intellectuelle am mu gis ni que jamono tey may na nit ki bu woor jotee ñu koy yëgle ak lan télégraphie kon mooy fax yi mooy internet bi mooy lan rajo yi am ñu dem bind ba xaaxira ne leen de ah am na ñu fi wax ni télégraphie de mën nañ ci yëgle koor ñooñ bu ñu demee université al azhar bu ñu ne leen effectivement jamono nangu na ko Cheikh Alhaji Malick mu ne leen nag ci ba muy lay l'islam contrôle technologie la lislaam nangu na même bu dee yéefeer tey micro yi ñuy utiliser yëpp kan moo ko kii defar yéefeer studio bi ñu nekk daare l'islam kan moo ko euh, defar yéefeer a ko jël defar ko waaye te ñu ngi koy utiliser pour lan l'islam kon lislaam kon nangu na loolu Cheikh El Hadj am foofu ndam ndekete boobu la professeur Samba Gaye waxoon ca thèsam mu ne Cheikh El Hadj Malick précurseur des nouvelles technologies de l'information et de la communication kon bu jamono tolloo foofu kon laaj na tey ñuy diffuser message bi ci li nga xamante ne jamono moo laaj ci foofu nag la asfiyahi point org tamit gis ni am na waar bu mu war a béy ci biir toolu maam Cheikh Al Hadj biir ci biir toolu tarixa Cheikhuna Tidiane mu jël liggéeyam ginnaaw bu mu sosoo ci kër baaba Babacar si ci ndigalu Serigne Sidi Ahmed Sy bu sëñ kër si en 1996 boobu ba tey ñu si def ay jéego ci wàllu daara taxawal fa daara ju mag tuddee ko daara kër sëñ Babacar mu am incha allah jardin d'enfants islamique bi daarul habibi wala war a démarrer ñu ni amit programme sociale weeru koor bu nekk ñu investir ci prison yi hôpitaux yi fu jaamu yàlla nekk ci réew mi ñu fexe ba di séddale ay junni junni junni ndogu ñu tuddee ko ndogu de solidarité yëpp a ngi ci biir asfiyahi point org ñu amit volet boo xamante ni communication la ndax dañu gisoon ni site internet yi daan doxal ci euh, tiwaawoon yu ci bëri dafa am fu ñuy yem ñu nekkoon jamono laajutul kenn ku nekk nga toog ci sa biir roq na ko sëriñ Abdou Aziz Al Amin al waxee ne ku nekk mën nga am sa sëriñ diw moomu jox wér diw moomu jox wér waaye bu liggéey jotee nañu àndoo ñu ñëpp nekk benn xam ni la part Maodo si ibnu Cheikh Alhaji Abdou Aziz si waxoon ni ñoom kenn waru leen a gis benn jëmm la ñu war a gis à kan travers ñoom maam Cheikh Seydi Alhaji Malick te mooy dellu li alquran wax ni laysal birru an tuwallu wujuhakum qibalil mashriqi wal maghrib walakinnil birru man amana yàlla nee na mbaax du kii féete sa bopp penku du féete sa bopp sow waaye mbaax mooy ñëpp gëm yàlla kon mbaax mi du euh, sëñ Mansour moomu jox wér du sëñ Baye Mansour moomu jox wér du sëriñ Maodo moo jox wér mooy ñun ñëpp ñu àndandoo ci l'essentiel muy kan Cheikh Al Hadji Malick Asfiyahi def si jéego bu mag 2009 bi mu juddoo ñu euh, couvrir gàmmu gi boobu ñu ngi nekkoon ci Paris yàlla def boobu nag ba six heures du matin ñu synchroniser def duplex boole nag takku takkusaanu Seydi Jamil champ de course bu sëñ Ahmad Tidiane zawiya Cheikh Al Hadji Malick sëñ Maodo sëñ Bay si Mansour jumaa sëñ Babacar sëñ Mansour sëñ abdu ñu synchroniser loolu lépp def ko duplex ba fu immigré nekk mën ko xool 2010 ñu dem euh, Sénégal investir ci gàmmu gi dem sur le terrain indi suñu ay moyen bopp caméra loué ay matériel taxaw fexe ba képp fu internet nekk premier gàmmu gi ñu ngi amoon soixante mille yu ko xool ci àdduna bi deuxième gàmmu ñu am cent cinquante mille tey mi ngi àgg ba ay deux cent mille auditeurs couvrir am aussi banque de données yoo xam ne tey fu nit nekk ci xadara bi mën nañ la yónnee message ci benn minute nga mën a jot li xew di jël événement yëpp di ko couvrir en direct ziare général ñu bëri dañ daan toog Tivaouane duñu xam nekk extérieur duñu xam lan moo xew euh, Tivaouane da nga daan dugg internet boo bindee daayira Tijaan do gis sax turu kër gi da nga daan bind tamit xilaasu zahab doo gis benn téere maam Cheikh Al Hadj Malick asfiyahi point org tey boo demee tey actuellement archive yi fa nekk indi nañu gàmm bi sëñ Cheikh daan toog ak sëñ Mansour indi nañu wax ya maam Abdou daan wax ca 1980 en vidéo bu ngeen fa demee actuel archive yi ñu ngi see banque de données yoo xamante ne tey yéene boobu mooy am na web tv bu ñuy euh, pare tij yi nga xamante ne day am ay kuuru fiq am kuuru tafsir al yooyu yëpp tamit incha allah dina amaale web rajo tamit taysir fm point net yooyu yëpp dinañ fexe ba daaray l'islam am si place bu yaatu de de diffusion ak yeneen yoo xamante ne incha allah am nañ ko yéene def ko waaye loolu lépp macha allah ñu si sant tamit di ci encouragé ki nga xamante ne tey moom moo ko euh, moom moo diriger équipe boobu yëpp ñu teg ko ci liggéey boobu ci loxoom mu di sama euh, rak sës ci man rek te duma rek di Mam Momar Njaay ñu koy di caatu soxna xadisi bu bu sëñ Babacar di ko def ak liggéey détermination gàmmu Tiwaawan boo ko gisee ni muy futee ko buñ la waxul kii sëtu alaaji Maalik la doo xam day taq rip niñ koy waxee nekk sur le terrain ànd ak équipe yi dugg futeeku ngir dimbali émigré yi mën a xam li xew euh, Tiwaawan lépp nag ñu koy def nag ak moyen bo personnel amul kenn ku mën a taxaw ni tey man may financé asfiyahi point org ñuy sant ñi nga xamante ne tey ñu ngi am seen yéene bu rafet di ko taxaw jàppale ko te asfiyahi point org dafa indépendant dafa taxaw pour boole njaboot Cheikh xaaj Malick taxaw ci unité amul fenn foo xamante ne tey nit mën na ne asfiyahi fii la bokk asfiyahi Tiwaawan moo ko ñor ki Cheikh Hadj ak tamit l'islam bi yëpp lu xew Touba sëñ sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke yal na yàlla may ko gudd fan may ko wér ñu jël ko diffuser ko lu Kaolack Niassène Thiénaba ñu jël ko diffusé ko lu xew ca médina Gounass ñu jël ko diffusé ko lu xew ca waa kër maam Cheikh Al Hadj fouti Foutiyou ñu jël ko diffusé ko ba mbokk murit yaa ngi ñuy woowee daayira Espagne bu euh, murit yaa ngi ñuy woow fu nekk nañu kontaan nañu ci liggéeyu asfiyahi.org ndax dem na ba nekkatul tarixa moo ko moom nekkatul kër moo ko moom l'islam bi la fi nekkal muy l'islam bi yëpp ndax maam sëñ kër Si radiyallahu anhu ba tubaab bi ñëwee ne ko ñun de dafa am gëstu bu ñuy def ñu ngi jóge université al Harvard bu bu États-Unis archive yaa ngi foofu dañu bëggoon nga wax ñu nag tey ban tarixa moo gën Sénégal mu ne leen ah yéeni dama leen di laaj ngeen tontu ma ci wàllu administration policier bi gendarme bi sapeur pompier bi corps yooyu yëpp ban koor moo ci gën tubaab bi ne ko ah ñoom ñëpp benn drapeau la ñuy servir muy la drapeau national sëñ Babacar ne ko ñu ne tijaan bi murit bi xaadar bi laayeen bi ñun ñëpp benn drapeau la ñuy servir muy lan drapeau l'islam tabarakallahu asfiyahi point org ñëw pour defaraat jikko yi ñëw pour investir rawatina nag immigré yi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi yëpp ñu ci lancer appel wax leen ni seen outil la seen outil la te nit ki nag li nga moom doo xaar kenn nag jiitu la si événement yi couvrir yu ci bëri dañ koy def lan gratuitement direct yeeg yëpp te tey laaj na ñu am benn autonomie sur le plan matériel te taxawaay boobu yëpp mooy kenn ku nekk la ngay toog di tijji sa internet di gis asfiyahi.org di ko bége même bu dee benn dollar la boo koy jël do ndax ku dem foofu daara ja dugg biir kër sëñ Babacar ndax Richard dafa am lu mu symboliser tey sëñ Babacar si fa la nekkoon boobu mi ngi dëkkoon ci rue Félix Faure gouverneur war a ñëw seet si ko sëñ ci éducation bi mu amoon Saint-Louis ndax moom intellectuel la jàngeen na poste ci 1910 nekkoon fa commis am na sax xasida boo xam ne mi ngi ko bind ci français wolof wa haysuma laqitu minhu wahida yaqulu mais et eh bien yakunu shahida aje la daawi daahihim maarufun noono wa wii wii min baynihim maalufun loolu yëpp tabarakallah pour wane dimension intellectuelle Serigne Babacar Sy daal di àbb fenn recevoir gouverneur bi gouverneur di dem nag mu ne jot na ma am kër nag ndakaaru si la benn mag gént maam Cheikh Alhaaji Malick ci guddi gi mu ne jot euh, fii de muy doxantu benn toolu ñaam bi mu ne fii de laay wutal Babacar kenn mag mi dem wax ko ko mu dem laajte pàkk boobu jënd ko muy quatre vingt dix neuf rue nekkoon quatre vingt dix neuf rue Thiers fa la taalee adduna bi daan fa def juróom benn weer maam Cheikh El Hadji xëy na ñëw fu big suba teel mu ne ko Abdou big de la fi Cheikhuna Tidiane jóge kon li mu symboliser tey ci mission mooy que fa muy asfiyahi org di diffuser tey macha allah daara ja nekk fa waayu sëñ Babacar la abi bu Serigne si Sy Mansour waxoon ne yu ci bëri fii mooy balluwaayu li nga xam ne tey du bëri mi ngi doxal kër maam Cheikh Seydi El Hadji tabarakallahu loolu muy taxawaay bi asfiyahi point org di liggéey tey ci ummatul islamiya bi di ko liggéey ci diaspora bi yëpp tabarakallahu loolu yëpp nag muy lan diine ndax nit ñi buñ leen dimbalee ñu xam seen fiq la maam Cheikh El Hadji daan wax képp ku mu bokkal jamono nit ñi nañ leen wan yàlla bañ leen a wan suñu bopp ndax buñ leen nëbbee yàlla wan wan leen suñu bopp dañuy dem ba ñun la ñuy jàppee yàlla ñu yee nit ñi ci loolu taxawaay boobu la asfiyahi point org bëgg taxawal fexe ba mu nekk outil immigré yi te immigré bu nekk ñu ngi lay lancer appel ci ñu taxaw si sur le plan matériel soxlawuñu dara leen lañu soxla mooy que matériel ñu ngi siy lancer appel ñëpp moo xam caméra la moo xam ordinateur la moo xam euh, vidéo projecteur la lépp ñu mën ko teg nag au service d'asfiyahi point org ndax incha allahu taala am na jéego yu mag yuñ ciy jëm ci rajo télévision mën a diffuser dans le monde entier gis ngeen léegi ko am sax iPhone am na application boo xam ne boo duggee ci euh, asfiyahi point org da ngay am léegi application iPhone nga xam ne foo mënti nekk rek message bu dugg rek da nga koy jot ni ndax foofu moom la jamono toll te dinañ dugg ci bouquet yépp incha allah moy bouquet satellitaire yi ñu mën a jotee diffusion bi yëpp ngir loolu mën a mën a jëm ci kanam lépp nag tabaarakallahu ñu si ñaanal xalif général de de Tidiane sëñ Mouhamadou Mansour si borom daara ji dafa daan taxawu ci asfiyahi point org daf si daan taxaw lépp lu muy def ne dugalal leen moo ci internet bi ñu ngi may woo dim ndax xam na fi jamono tollu moo taxoon mu daan waxee ci foofu ba bi muy mujjee génn àdduna dafa jël archive yëpp yëpp yëpp yëpp lu mu mës a def ci vidéo yónnee ñu ko bis boobu sama rongoñ dafa doon tuuru mu ne nag nañ ko defal benn film suñu tuddee ko la dimension littéraire de borom daara ji film boobu bañ ko commencé diffuser sama xel dafa ñaaw ñu toog jékki-jékki rek ma yëg ni jamono biñ ko liggéeyee de sëñ su joxe si ndigal am na lu mu yëgoon ndekete boobu mu ngi wuyu ji boroomam film boobu ñu ngi koy def en coproduction ak E, télévision yu mag Sénégal incha allahu taala bu pare bu àggee rek dinañ ko diffuser ci àdduna bi yëpp ci ndigalu xalifa bi sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ak yeneen projet yoo xam ne Asfiyahi am na yéene taxawal ko diaspora bi yëpp ci wàllu bind mag ñi firiwaat xasida yi léegi téere yu bari ku dugg léegi internet di nga fa fekk Euh, fiiri nañ ci xilaasu zahab euh, fakihatu tulaab téere mag ñi lépp nag ba pare nag mag ñëpp maam maam Cheikh alxaaj Mansour sëñ Babacar alxaaj Abdoulaye si Dabax alxaaj Habib Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha si Jamil ba si xalifa bi sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si almaktum lépp seeni œuvre ñu fexe ba jël ko diffuser ko wane ko ci àdduna bi yëpp loolu tabarakallahu moom la asfiyahi point org doon taxaw ci kër sëñ Babacar si ñu ngi bàyyiwaat kàddu gi ak Euh, yaayu daara dégluwaat ko ci kàddu yi. Euh, jërëjëf Pape Khalifa macha allah euh, fa tubarkàlla kaar ku déglu tey dinga nga dégg xam ni doomu daara wax na ci daara ji ñu di la gërëm bu baax a baax di la sant. di lancer appel bi rek képp koo xamante ni yaa ngi déglu rajo daara ji rek ñu ngi lay lancer appel ci lii nga xamante ni waa Asfiya yi soxla nañ ko muy matériel. Euh, comme ni ko Pape Khalifa waxe léegi xam naa ne jeunes yi nga xamante ni ñooy jeunes tijaan yi nekk fii ak jullit yëpp ndax asfiya yi jullit yëpp la fi nekk euh, te asfiya yi fas yéene incha allah link ak rajo daaray lislaam ba nga xamante ni daaray lislaam àddina yëpp dinañ ci gis seen bopp kon ñu di leen sant bu baax a baax di leen gërëm euh, ñuy laaj rek Pape Khalifa mhm. képp koo xamante ni am na ndimbal loo xamante ni fas yéene na leen ko dimbali ñan lay contacter. waaw euh, ñi nga xam ne dañu am yéene incha allah dimbali asfiyahi point org bu ñu duggee ci site bi rek nañu gis ndax euh, moyens yi ñu leen mën a bu dee ki nga xam ne moo nekk Sénégal mhm. tey lu mel ni wari mi ngi foofu. Mhm. ku xam ne mi ngi nekk extérieur tamit monogram mi ngi fa western ngi fa mhm. bu ko defee numéro yi yëpp mi ngi ci biir site internet bi mhm. ku ci mën a woote it 77 343 07 07 muy numéro bu kii Sénégal 002 0 343 07 07 07 07 waaw waaw mhm. wala 76 875 75 75 76 800 soixante quinze soixante quinze soixante quinze ñetti soixante quinze waaw waaw boobu mm-hmm. mm-hmm. tamit ku ci woote tamit Sénégal ñi si des nag nga xam ne dañuy dugg ci site bi yëpp ku tijji site bi rek di nga si fekk incha allah mm-hmm. faire faire un don à asfiyahi point org di nga fekk mboolem foo mënti nekk rek tur euh, tur yi nga ko war yónnee di nga ko fa fekk bu da nga nekk extérieur bu ko yónnee di nga fa fekk tur yi ko defee loolu lépp incha allahu taala ak ñoom soxna mami yi nekk États-Unis tamit ñoom ñëpp Euh, euh, rele la ñu tamit ci foofu ñoom mën nañu jokkaloo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo koy taxaw incha allah tamit ñu ngi lancé appel tamit ci xew-xew ndax am dafa am loo xam ne mbégte la muy tey ñuy wax zawiya Cheikh Seydil Hadji Malick ci fan New York waa Sénégal di ko waajal sëñ Cheikh Ahmed Tidiane di ko waajal sëñ Abdou Aziz Al Amin di ko waajal sëñ Maodo si Dabaax di ko waajal sëñ mbay si Mansour di ko waajal laaj nag keroog la sëñ Mansour si baax wax ne képp ku nekk bul xeeb dara benn dollar dix dollar lu waay am jàppale ko tamit zawiya boobu incha allah asfiyahi point org fas yéene na si def liggéey bu mag ci wàllu communication ca Sénégal avant ñuy nit ñi nit ñi di ñëw bu ko defee loolu tamit ñu ngi koy loo xel ni ñi ñu euh, kii yàlla bàyyiwaale ko xel bu baax baax foofu ci biir New York. waaw ah, léegi mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ah, danu bëgg ubbi ligne bi rek man bu doon cinq minutes rek. Ah, hmm. ñi ñi nga xamante ni rafet la nu lii nga xamante ni moom la fi Pape xalifa bu bu soxna xadisi bu soxna bu Serigne bu Khalifa Ababacar radiyallahu taala ñu woote. joxe euh, seen euh, participation si lii nga xamante ni moom la fi pap Khalifa wax léegi mën nañu woote ci 212 219 9695 212 219 9620 212 219 9629 212 219 9634 kon képp koo xamante ne rek euh, Pape Khalifa am na ku nekk ci ligne bi ñu xool kooku ah. kan la waaw daara l'islam bisimilah asalaamaaleykum waa salaam wa rahmatulah. yaay daara ji. la bayka. man la sëñ Mor président bisimilah euh, Pape xalifa kii mooy euh, euh, Talla Ndiaye mooy président mhm. daayira Mali Seydi Haj Malik bu góor bi nekk fii ci New York. moom moo dugg noonu ñu bàyyi ko. ba xam bisimilah mhm. président. Mhm. asalaamaaleykum. aleykum ah, salaam Pape Khalifa ñoo lay nuyu di jërëjëf jërëjëf sëñ Mor jërëjëf. tabaarakallahu waxtaan wi tabaarakallahu rafet na yàlla yàlla dolli xam-xam bi te barkal ko. amiin amiin amiin amiin. barke Seydi Aboubacar Samam barke Cheikh Seydi El Hadji Malick ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa vraiment xool sedd na xel dal na. jërëjëf jërëjëf. yow ak saraka ak ndaw ñi mel na yéen yal na yàlla barkeel leen. jërëjëf. bali mag ñi bëggoon lépp ngeen yeggale ko te ñun ñëpp nu fekk ko. amiin amiin amiin amiin ja fa tabarakallahu ñeneen a ngi bëgg a dugg foofu rek laa te fa sunu xëy tam daal na tabarakallahu amiin amiin na yàlla yàlla barkal ko amiin amiin amiin amiin noo ngi lay ak mboolem mbokk yi nga nekkal foofu ak mboolem waa addina bi na yàlla nangu siyaar baax jërëjëf jërëjëf Njaay Njaay jërëjëf Njaay Njaay jërëjëf Njaay daay l'islam bismillah daaray lislaam bisimilah allo daaray lislaam dagg na kooku waaw kooku dafa dagg kon ñu mbokk jullit yi rek ñu mën woote ci 212 219 9695 ñëwaat na daaray lislaam bisimilah xam naa kooku dafa am problème euh, ñu mën woote ci 212 219 9695 212 219 9620 212 219 96 29 96 34 Pape Khalifa uh, ñu dégg uh, macha allah li nga wax fii léegi xam naa ni mhm. ñu mel na uh, taaw Daouda Sarr ñu ngi lay déglu ñu xale yi ñu mel na ñoom ma Famata Seck <laughs> ñu mel na ñoom Euh, sama papa fali Ndiaye ñoom ñëpp ah. xam naa ñu ngi déglu euh, li nga wax te incha allah xam naa ni dinañ ci def seen euh, participation soobee ci kattanu sunu borom kon ngeen mën woote ci 212 219 96 95 212 219 96 20 212 219 96 29 212 216 95 34 Pape Khalifa bala kenn du dugaat ci. Uh, uh, ci ligne bi. Uh, mhm. dañu bëggoon la ci mhm. xaaral ligne bi xonq na ñu seet ñi ba xam lu ñu bëgg mhm. participer. Daaray l'Islam bisimilah allo allo Daaray l'Islam bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaleykum salaam wa rahmatulah. yaay daan Cheikh Ahmed Tidiane. waaw xalifa kooku Cheikh Ahmed tiijaan ñang la. est-ce que ñang jën nekk muy doomu Pape Moussa ñang bu. est-ce que Tiwaawan. est-ce doon jiite zawiya sëñ Babacar. kooku kenn laajte. këram fa la pantere sëñ Babacar si nekkoon fa la daan. est-ce que avant muy am kër Tiwaawan seen kër moom la daan dal. Mhm. wallaahi. wallaahi barakallah euh, sëñ Mm-hmm. waaw ah, sëñ Cheikh Ahmed Tidiane. ñang ñu ngi lay ziar bu baax. ñang ñang ñang ñang yàlla yàlla na nga ziar ñang. di kontaan bu baax ci liggéey bu rafet bi ngeen liggéey. jërëjëf jëf jërëjëf ñaan. ñun bépp information bu ñu bëgg rek asfiyaah yi lañ koy jotee. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf ñaan. suba ba ngoon ci la ñuy nekk di gëstu. di ci information ñu bari nag site bi ñu bari ñoo leen ko jox tabarakallah. macha allah macha yéen ko moom yéen ko moom. waaw di ñaan yàlla nag liggéey bi àgg comme ni ko sëñ Talla waxee rek ngeen àggali liggéeyu mag ñi. amiin amiin li tal ko. amin amin amin amin kontaan bu baax a baax a baax nag ci li ngeen. ak rajo daara ji. ak tamit li ngeen yëg ni zawiya maam Alaaji Malick bi liggéey bi fi nekk te am solo yéen la faral dëgg la ba préparation yi ngeen ci def yëpp yàlla na sama borom bi àggale ko amin amin amin amin barakallahu am na ñeneen ñu war a dugg xam naa dinañ jokkoo buy passé incha allah incha allah ñaan kontaan nañ baax bu baax nag di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen may leen gudd fan ci barke sëñ Babacar si amin amin ñaan amin ñaan amin ñaan kay salaamaaleykum. waaleykum salaam wàññi rajo bi. Mhm. waaw fay naa ko yaay Daara na nga def. ñu ngi sant bu baax a baax kooku Abdou Aziz. <laughs> waaw. <laughs> ci suñu Babacar. Mhm. jërëjëf. Euh, yal na la yàlla fay te may la fan wu gudd. amiin amiin amiin amiin maam. ba nga maam ya yëpp yëpp yëpp yal na ko wàcc yàlla wàcc ci yow. amiin amiin amiin. da nga wane lu nga xamante ni maanaam intellectualité bi nekkoon ci Seydil Hadj Malick. amiin amiin. Mhm. ba taxoon mu nangu ba ñuy wax ci wàllu koor ga moom mu def ci xasida bu rëy rëy. dëgg la dëgg la. nga indi ko yow ci jamono ak âge bi nga toll nga indi ni l'islam mën na ànd ak jamono. dëgg la. dañuy wax ne euh, euh, euh, al islam tusaaxibu. zamaana mhm. jamban bi jamb. wallahi wallahi wallahi. dafay ànd ak jamono. ko tax dëgg la wallahi wallahi. ñi nga xamante ni sama classe nga xam ni sax amuñu xel mu bari mm-hmm. wane nga risaala Muhammad nan la war a ñëwee di ñëw di ñëw di ñëw ba niñ ko mën a déggee ñun ci wàllu internet ci wàllu communication wallahi wallahi jërëjëf jërëjëf Ndiaye yal yàlla fay la guddal sa fan amin amin amin amin njàng mu nga jàngale tey amin amin njàng mu moom la moom la ñëpp jàng yal yàlla fay la amin jërëjëf jazakumullahu xeer ah, jërëjëf jërëjëf Abdou Aziz kooku mooy Abdou Aziz Fall. Fall Fall jërëjëf Fall bu Tiwaawoon. est-ce que est-ce euh, macha allah di borom xam-xam. macha allah waaye làqu na. est-ce que est-ce que waaye borom xam-xam la ku. est-ce fi mu waxee rek xam ni macha allah borom xam-xam. est-ce que ñu euh, profito. waaw xaaral ñu Islam bisimilah. asalaamualeykum. waaleykum asalaam wa rahmatulah yaay booy. yaay daara ñu ngi ziar. kazalika ah, Pape Khalifa. waaw. bu président duggee. présidente daayira Seydi Hadj Malick dugg rek. defe naa ni bu kenn duggatul sax macha allah. macha ah, ah, allah yëf yi neex na ba pare. macha allah macha allah waaw kii di wax nii mooy soxna Khady Diop de baax. est-ce que mooy suñu présidente de présidente daayira bu jigéen bi. Ah, macha allah moom moo dugg noonu fas yéene joxe participation bi. yaay booy bismillah waaw ñu ngi ziar bu baax sëñ Babacar. jërëjëf soxna Xadi jërëjëf. ñu ngi lay ñaanal kontaan lool ci waxtaan bi di ko rafetlu. tur uyu na borom macha allah. jërëjëf jërëjëf. ñu ngi lay ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram. amin amin amin amin ak xam-xam gën a yokkute yaatu. amin amin amin amin kontaan nañ bu baax ni ko yaayi daaray waxee rek jotale na matale na macha allah. Mhm. jërëjëf jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum asalaam wa rahmatulah. Euh, présidente yaay kontaan nañu. Euh, kon euh, Pape Khalifa dégg nga macha allah ñi jotul dugg lu rafet lu ñu wax. te ñëpp a ngi bëgg dugg waaye heure bi jot na pour ñu jàll ci beneen programme. Euh, léegi dañ lay bàyyi rek nga euh, ba xam lan ngay tàggatoo ak mbokku jullit yi nga xamante ni incha allah dinañ lay programmer weer wu jot dinga ci dugg waxtaan ci ak nit ñi ñu fàttali li nga xamante ni mooy sit bi muy mhm. asfiyahi point org nga xamante ni lépp lu nit bëgg xam ci diineem ñu ciy jàngale euh, julli di ci jàngale jàpp ni ñuy sang néew ni ñuy mhm. sangee néew macha bi li ci nekk lépp ci ngëneel la kenn mënu ko wax ci rajo xanaa dugg ci site bi day gis ka yéen ñi ngeen xamee ni yéen a ko taxawal di njabootu Seydi Hajj Malick mhm. ñu ngi leen di ñaanal gudd fan gu ànd ak wér amin amin amin amin xalifa yal na yàlla guddal seen fan amin amin yàlla wéral seen cër amin amin amin dina ngeen bëgg yal leen ko sunu borom defal amin amin amin amin nag sunu loxo képp koo xamante ni yaa ngi ci États-Unis loo mën dimbalee waa asfiya yi rek mhm. incha allah joxe na mhm. ci wàllu matériel moom la ñu gën a mhm. soxla incha allah xam naa ne xale yaa ngi lay déglu waa waa muxta fii na ñu ngi fi incha allah sa jigéen Mami Diouf ca la bokk ah, dina ñu leen ko jottali dinañ leen ko àgge incha allah ñu taxaw si lu ñu mën dinañ ko ci def incha allah ci kattanu sunu borom ñu bàyyi la rek ba xam lan nga ñuy dénku ah, euh, Pape Khalifa tabarakallah waa muxtafina yooyu nga tudd léegi sëñ Mouhamadou Moustapha Sy Abdou 96 ba tey mm-hmm. moo ñuy gunge dañu defal suñu conférence annuelle ci loxoom lañ ko teg mm-hmm. mooy jàpp date bi moom moo ko taxawoon moom it tabarakallahu di taxaw taxawaay bu mag ci biir lislaam bi mm-hmm. tabarakallahu ñu leen di sant bu baax a baax yaayu daara ñi nga xamante ne ñoom ñoo woote ñu déglu ci Euh, daaray lislaam ndax mm-hmm. ku dem New York ak ci àdduna bi yëpp xam ne tey mm-hmm. daaray lislaam àgg na foo xamante ne ba ñu nekk Sénégal sax dañuy yeewu léegi mm-hmm. toog mën koo déglu ci yenn site internet yi asfiyahi point org fas yéene na incha allah gunge leen si taxawu leen si ci wàllu boobu incha allah te ñu leen di ñaanal tamit yala may leen gudd fan may leen wér mottali li ngeen am di ñaan tamit liga nga wax léegi rek boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo doon woote eh, am na ñoo xam ne yàlla daf leen wala ci anglais la wala ci euh, kii la français la dinañu fekk contact asfiya yi lu ñu mën a bind tey défendre ku l'islam ak tarixa bi buñ ñu ko envoyé mhm. dinañ ko jël am na commission bo xam ne moo koy xoolaat suñu paree ñu jël ko diffuser ko ñi si am tamit ay waxtaan tamit nga xam ne ay vidéo la yoo xam ne yéen a ngi koy def foofu ci New York daay rëyeeg yëpp mhm. ñu fexe ba ñoom mhm. euh, envoyé ñu seen i vidéo seen i mhm. nga bëgg ko def tamit en direct service commercial mi ngi fi nañ la ko diffuser moo xam yaa ngi Sénégal moo xam foo nekk programme boo am ci euh, gàmm gàmmu fële Treviso ñun ñoo xalifa bi sëñ en direct ci néegam wan diaspora ba fa nekkoon te loolu ay technologie la yoo xam ne incha allah dinañ ko taxawal ci biir internet beeg lépp mm. kon ñu ngi leen bu baax a baax a baax mm. ñaanal yàlla gudd fan may leen wér li may tëjee mooy la sëñ Mansour wax yal na yàlla bépp immigré ak foo mënti nekk yal na yàlla defal ñu mucc ak mos ñaari miim yooyu ci mhm. barke ñaari miimu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soxna euh, mami bu baax baax ci kii bi coordination bi mhm. ñu ngi lay ñaanal yaayu daara macha allah mhm. lii mbégte la dama seetaan benn télé Abu Dhabi jigéen ñi télévision bi ñu ngi ko jagleel jigéen ñi ñoom ñooy def tafsir alquran yi ñoom la ñuy def ay prix ma ma ne lii de tey jigéenu Sénégal tey war nañ leen gën a dooleel ci li te nag mm-hmm. daale lislaam tey mm-hmm. wane na ko macha allah ak ni présidente duggee mm-hmm. yal na yàlla mottali seen mbebe ci njaboot gi bu Sénégal def fa sutura def fa xewal def fa xa xëpp sotti fa ndox mu sedd boole xol yëpp tàppe ko di barke maam Cheikh Alhaji Abdou Aziz Sy Dabakh wa axir daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin xam naa ni euh, ñëpp dégg nañu te incha allah dinañu def suñu kémtalay kàttan euh, di jokkoo ba lu ñu bëgg ci site bi yàlla defal nu ko te yàlla dina ko def ci barke euh, sëñ Babacar amiin amiin bu baax a baax jërëjëf jërëjëf heure bi ku nekk xam na ni France guddi na ku ne xam na heure bi jot ca France waaye lii lépp sa maam moo ko waral kon nag sa barke na yàlla yal na leen sàmm amiin amiin leen lakk leen fa lakk àggul amiin amiin yàlla wéral leen te leen amiin amiin Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ci euh, euh, euh, njabootu Seydi Hadj gi yëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant di leen di la ñaanal wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf